fait partie de l'ancienne école, Boué hmm. Hip Hop, une Boué Boué Boué Hip Hop école comme si université bi le le quoi université et tout donc yàgg depuis vers les années 80 nous y a hip hop donc déjà il parle en connaissance de cause et tout yow Bill ni et tout comme nous l'avons tout à l'heure Bill Diakhou ak génération bou on a parlé tantôt de style Dirty South avec nouvelle génération génération bu bees bi c'est nii nan nga musique le rap ak génération bu bees bi déjà il y a de nouvelles stars mhm. auparavant peut-être dañ doon bëggee Bill je prends le cas de Canabas je prends le cas de Ngaka Blindé je je je voilà pour ne pas citer quest c'est quoi y en a d'autres yow actuellement nan nga koy dundee ak new generation bi ak sunu star yu bees yi ci rap bi <laughs> moom laa lay wax rek que ne comme comme comme comme kaana bas parce que sama rappel bi mu gën nekk booy bi ñuy rap nekk woote cool di rap dañ ko doon gis. moom tamit. Euh, Padwa, Padwa, Builders. Padoa wote oh, cool. Mon <laughs> Padwa le Padwa le Yaro. waaw xam carrément Padoa Padwa? yor xam nga. Bass wil sa grand bir jaxo voilà xam nga <laughs> c'est c'est bien beau et puis okay. je suis fier de lui. ok la rek je suis fier de lui et okay. j'aime beaucoup ce qu'il fait. ok mook ñeneen ak ñeneen aw ma ak sen je les aime tous. am na ñoo xam dañuy def rap mais ben rap rek la bëggul quoi moy rap bi nga xamni sa ndey da koy déglu sa baay di ko déglu ngay saaga. boobu ah, rafetul mais nañ ko rafetal ba mu rafet parce que euh, musique taatu neen la nañ ko jee ma wodd ba mu gën a nice présenté ko parce que man je vois que ne am problème mën nga jël benn affaire bu tilim ci mbedd bi nga raxas ko ba mu set présenté ko gars yi laay ko mas rab bi bu njëkk ba kenn bugg ko woon. man maa ko dugal ci Sénégal ci kër yëpp. ñëpp bëgg rab. bon pour pour pour pour dire pour pour dire vrai quoi c'est pas pour prendre parti moi je suis juste un journaliste je pose des questions je prends pas parti quoi mais aussi ñu analyse analyser ñu ngi gis et tout je l'ai dit tantôt quoi en fait mon musique am amoon accès ci ci ci ci ci paye yi ci maire et tout quoi bu ñu sal sa bay bayer nga rap wala sa bay bàyyee la nga rap grâce à bil Diakhou. ok te man maa lolu loolu noonu dama ko liggéeyal pour samay jeunes frères liguel ko pour samay doom. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen donc. amuma luma ma leen wax lu dul di leen tàccu di leen gën a encouragé su ma leen mënee jàppale buñ ma seetsee. d'accord techniquement naa leen jàppale financièrement bu ma ko mënee dama koy def ak ak ak moralement. yow en tant que quelqu'un qui fait partie de l'ancienne école est-ce que tu trouves que le rap sénégalais a une bonne relève. non. Mm. Non, l'Europe... sénégalais... Tout à l'heure, il y a souligné Canabas, tu l'aimes bien et tout, la relève, c'est Non, non, je ne parle pas de relève. Euh, exportation, mon, mon, mon tarmaïwa. Mm. Ce fait que côté exportation, bi ne wax hmm. peut pas marcher. OK. quoi. non ça ça marche pas. lan mooy solution mais pour qu'il y ait une bonne relève. dañ africaniser def hmm. comme les Nigériens def comme les les Jamaïcains def comme les les les c'est c'est les les def comme les Guinéens def comme les Maliens. comme les Ali Falka Touré comme d'autres xam nga style yi moi ko djema a africaniser am dolé. buñ ko ci petit gars dañ koy consommer par force. Moi am métissage quoi waaw métissage. Mm, non africanisé c'est du métissage africanisé parce que rap kebetu la ci taasu la jógee. taasu lan la du gaam ternaire la ak binaire. Mhm. taasu gaam binaire la. booy ñooy joué ternaire binaire ternaire. mais ce qui est bizarre tey kuy rap nii ak taf benn son ak maan sax featuring ak mbalaxmaan wala nga xaw ci daf style bu mel noonu wala sa son amay sabar gars yi dañuy naan fake nga lu waral loolu exactement est-ce que dañu formaté public bi ci le rap pur et dur moo tax mënuñu consommer leneen leneen li wala nu mu demee lan la exactement la yooyu affaire ki nga xam ne moom xam nga ne yow li muy def neex na les gens consomment nga taxaw ne feeg la kooku ngaaka nga quoi pour man yow dof nga sax doo ngaaka parce que yaa a des boy yoo xam ne ils sont pas intelligents bul sonn bul sonn intelligent wuñu mhm. déglu nañ benn Wu-Tang ay at foog nañ ñuy bon waaw Wu-Tang man déglu naa benn son wu boo xam ne dafa am tama nga am ci biir am naa boo xam ne euh, dafa am kooraa ay wu yu bari parce que ñom après dañuy dugg ci Africa def ay ki bo par def en collaboration avec les Africains def ay tube ay tube un peu partout. tama djembe ak sample bu ñu dégg bu Omar Pène faré mam le si ah. Rough c'est loolu ça fait plaisir ça fait plaisir. donc nañ ko africaniser nañ bàyyi yoyu quoi et puis ñu xamni tamit bu fekkee ne da ngay rabal pour sa ñetti nit sa waa koñ Vous mhm. mais vous rabal aduna vous da ngay def li soxla def musique Vous conseil. musique bu Vous Vous ko bu vous vous gars ñu wax Vous fake la luy fake C'est quoi un fake fake mooy ku bon fake bon fake n'a fake. Mais vous faites tu crois à ce que tu fais, tu n'es pas fait. Ok. Ok. Voilà, justement, on est toujours avec Bill Jarro sur Buzz.sn dans Carrefour des Stars. Donc, euh, il a proposé un album, un album de 15 titres. Donc, c'est un album blues. Daniel de album, réalisation album, ça a été comment Album Bahini, hein? réalisation ça a été comment Bon, euh, réalisation, bi, nous réalisé mon copains Digger mu il y' a Cher, y' y' a y' a Dado. ok voilà nous avons réalisé presque album. donc avons réalisé album bi quoi donc on peut comprendre que comme live le carrément. carrément live c'est 100 live. il y' a des sons qui sont en rap. ok j'ai des fans qui qui, qui aime côté, côté rap. Je Okay. Donc, quelques titres en rap 100%. Ok, donc euh, l'autoproduction, quoi. Il y a non, on produit par Story Blues, parce qu'on a un label. Qui s'appelle Story, Blues. C'est le même titre de l'album Story Blues, hein? C'est le même titre de l'album. Ok. le label s'appelle Story Blues. On a un président qui s'appelle Alex Okay. Hein. Et qu'on a des membres comme ceux dont je viens de le citer, c'est des membres, c'est des actionnaires dans Story Blues. Hein. Parce qu'ils travaillent dans Story Blues, des failles contributors Story Blues. Okay. on, fait, on joue un peu partout, Tchidokobi, mm -hmm. On a joué un peu partout, à Ambassade, à Iki. Hein. Les gens ont aimé. Voilà, comment se porte l'album en ce moment L'album se vend bien. Seulement, j'ai. Ah L'album, c'est à 5000 francs parce que c'est du blues. Ok. Hein. Et puis, les gens, nous de nous. nous parce que man côté euh, intellectuel bi nous, hein. fait uniquement pas uniquement pour les intellectuels mais c'est fait pour les gens qui réfléchissent. Ok. Voilà, justement. Donc, il a proposé un album qui s'appelle Story Blues. C'est un album de 15 titres, Bill Jarro, Benin un style blues carrément. Donc, pour les fans qui ont un album, c'est à 5000 francs. Donc, Mungen Story Blues, Bill Jarro avec, euh, action équipe et tout. Donc, déjà, nous avons ici studio, fait fait équipe et tout. Mais avant de conclure l'émission, nous avons ben son en live. Après, nous conclure. Mais hormis la musique, nous avons Bill. Si y a une activité, Bill avons Bill, nañ 2012 ci télé bi n'est-ce pas si yenn parti politique si terrain bi ba ñu bëre japp ni Bill est-ce que bàyyiwul sound dugg ci politique bi wala nu mu demee non exact en 2012. en 2012 de j'ai dama don ànd pas en quoi j'ai aimé Ablaye Wade ni mu riposté tenir tête. Alors que tout le monde disait Ablamad, il faut Moudem. Mon tenir tête parce que c'est un bon président et puis il a fait beaucoup pour le Sénégal. Est-ce que tu trouves que c'est un bon président Oui, il a troisième mandat. <laughs> Mais ça, lolo. Tu waxon pas d'accord, je la yam. pas <laughs> d'accord. Ah wat wax waxet bi kon yow Non non, je euh, ne nga man dama dama di nit ko xam j'aime pas l'injustice mais l'injustice est-ce que c'est pas de dire aux gens aux Sénégalais que je vais faire deux mandats après les deux mandats tu tu tu forces à faire trois mandats quoi est-ce que c'est pas ça l'injustice. après si bi ma information que c'est ce qu'il avait dit bon man bon na dem mais na dem ci jàmm. Hmm. après. mais ci kaw loolu Ablaye Wade mos ngeen gisante tête à tête wala nu mu des non bon Ablaye Wade bi ma je mujjee c'était en 82 ou 83. 1983 82. loolu yàgg na <laughs> ah ok mais gars yi parti bi gars truc genre pour pour compal la nga si parce que d'autant plus qu'il y avait le mouvement Yanama composé que de rappeurs et quelques journalistes. j'étais pas contre contre leurs idées et contre moi, c'est idée li me contre contrôle, rek moom Talbi. man j'étais là pour les sénégalais j'étais pas là pour Ablaye j'étais là pour aucun parti j'étais là pour les sénégalais Beaucoup nous ñu di tal, la nga après ça nous impôts faire mm. ma et man ngi bon acte man acte je suis comme ça suis ah, juste pour vous rappeler qu'on était avec euh, Bill Jahou il a proposé un album blues qui s'appelle Story Blues donc Bill c'est quelqu'un qu'on ne présente plus c'est c'est un activiste de la musique en général donc actuellement il doit faire sa répétition tout à l'heure on va prendre juste un ou deux tracks euh, répétition répétitions et tout. Bon, quant à moi, je dis aux internautes de buzz.sn, on se retrouve très bientôt avec une autre célébrité. Merci à tous. Peace out. xam-xam dongu gen bëggon ma sakku ji wat na ni dootuma fa dara daraja gis ngeen ni ma mel ba nga fay joggé li nga digënté won ak sëriñ bi ci seen digënté def ci dara du demb du sank soxor ba ñak ñàkk do mu jambur bu yexi rek mu jël la sank xolal fukki at juroom ci ren man dam ak sa xeer mu nuy wessu lif lam-lam ak sa xeer ñata des mom dama leen jëlale donte suqat nañu ci xol xam li yàlla di wax ci alquran jàng ba wàccee jox yool baay bu yóbbu ci kanamu sàppe ya mën a taxaw di suba waaye yalwaan guddi ak bëccëg te loo indi sëriñ beeg waa këram ñu koy jëm kontaan bay alquran dund dund bu dëppoog bu alquran maanaam bu diine bi santaane santaane santaane santaane santaane love.